maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci ne sa tur sa sant man de kontaan naa ci yéen wax dëgg yàlla ndax yéen de fu ma leen woowee rek nii rek lay demee te soxna Mariama mi bi fi ñëwee ba léegi lam ma waxoon ba tey jii tebbeeku ci dara de mi may woo guddi mi may woo bëccëg yoragu dara nag ay doom rek nga koy nga koy jàppee ci nga koy bàyyee te lam ma waxoon ba léegi dara dañu ci mi may woo guddi mi ngi may woo bëccëg. te loolu rek mooy ànd te am naa yaakaar ci moom ne yaakaar naa li muy yóotu bés bu ko gis bu ko jotee dina ñëw fii bëccëgu dara kàmm taxawaat ak góor ñi ndax góor su ne góor nga su ma jàppee nii rek loolu laa ko jàppee waxaatuma keneen nag keneen ñëwaatu fi it nag ndax man du ma jàpp di bàyyi te la ma waxoon ba tey bi dara dañagu ci nag ñun ko dañ ko topp nag jàppale ko carte bi daal luñ koy ko koy may daal carte bi rek nga koy maye sa doole daal mooy carte bii man maa leen ko ñaan nag ñu woteel ko ko ci jàmm ak salaam di ko xaar fii nag waaw nañ ñaan nañ ñaan yàlla defal ni li ñu bëgg ci jàmm ak salaam ñëpp fekk ko barke borom Tuuba sama waa koñ bi maa ngi leen di nuyu di jiital ci sama nuyoo bi nag euh, sama sama sama mbokk yi ma fi fekk si waaye nag di ci jiitalit nag sama sama soxna si ma àndal tey nga xam ne sama koy teg ci sama kanam di ko teg ci sama ginnaaw di soxna maam ay sa baaxum mii nga xam ne mooy caatum sëñ Mor faa sa baaxum nga xam ne saa yu ma jugee moo may léemu baayam mooy borom léppay baax te saa yu may dugg ci dara ba muy tuut tànk ak léegi saa yu ma nee léppay baax rek léppay baax maa ngi jiital sama nuyoo ci moom di jiital soxna yii ma fi fekk nag ci sama nuyoo ci ñoom di am mbégte lool tey ndax dama fee ñëwoon am lu ma waxante woon ak ñoom ne leen damay wut bis bu ñu demee ba ma toll ci ay élection dinaa fi dellu siwaat am lu ma waxanteeg ñoom muy list bi nga xam ne moom laa bëgg ñu woteel ma ko ñoom jigéen ñi Touba ñëpp woteel seen moroomum gaynde jigéen ñi mi nga xam ne toujours mi ngi ci jigéen ñi di leen défendre tey moo soxla te list ma ngi nii list bi képp ku ko voté sa coono jeex loolu maa ko assuré moom laa signé liste bi sama list bi képp ku ko vote ci jigéen ci département Mbacké bii sa coono jeex na yaakaar naa ci caméra laay waxe te dinañ ma xàmmee tey nag dama ne woon man sama campagne damay won jigéen ñi social bi gën a gaaw ma jënd lu ma 200 palaat fa seenee wëy wër lu mat ñaar ci mbootaay ak juróom yi nga xam ne ñoom kenn ku ne yaa ngi toog di ma xaar di ma déglu kenn ku ne ma dindi ci sama asaka yéene wan la ne fàttewu ma la ni ma koy defee mooy tey palaat yii ma fi indi teg ko ci loxo soxna maam Ndong mii palaat yi du dem ci palaati mbootaay du dem ci palaati fenn yéen ñii fi daje yéen a ko moom ma tàmbali koog yéen. ñaan naa yàlla nag bu ngeen ma voteelee li ma bëgg ma am ko ba fii ak 2024 ma teg fi sama président dinaa fi indi bee maa ko fekkee yéen bu ngeen dawul du ma daw. maam dong palaat yi damaa bëgg bëreeg neew nga dugal ko ca sa rondal gee mboolem ñii fi nekk mboolem ñii fi nekk képp ku ci xew le nanga nga dindi sa ñaar téeméer tegal ma tegal maam dong ci yi mu nekkal leen ci seen kees lu mu mat ngeen dolli ci muy gën a bari ginnaaw góor ñi daw nan jàppaleetuñu jigéen ñi jigéen ñi nan taxaw taxaw seen bopp booy may nit dang koy may nu muy nappe bu ko may jën su ma ñëwoon may leen ay junni junni ngeen séddoo ko du leen jariñ dara waaye palaat yi ku ci tiim di lekk di nga ma ñaanal ma fekke ba am ndombal tànk ba mën leen a jariñ lu ëpp lii yaakaar naa fii mooy sama fukkeel te duma bàyyi fii ak élection yi bis bu set dinaa dem ci ay mbootaay may leen ay bale wala ma may leen ay palaat ñu tàmbalee seenub liggéey voté sama list bii list bii bis bu amee ndam benn jigéen dootul am problème yéen nag ay gor yu gore ngeen ñu neex a àndal ngeen ndax la ngeen ma waxoon lool ngeen def neewoon ngeen ma ñu dem fenn ku fi ñëwit dinañ ko ne ñun soxna Mariama lañ àndal te def ngeen ko maa ngi ñaan ngeen ñaanal ma sama list bi fépp ku waay xam ak fépp fu waay mën a dugg ba list bi am ndam ci département bi nga defal ma ko ñaanal ma tamit président Pape Diop mi nga xam ne moo ma dooleel moom laay jàppale muy laaj maire de Dakar moom it mu jot ca maire bi Dakar ba gañe ko ñu gañe fii mbooleem kuy wut ci bokk gis-gis nga am ndam ba ñu mën a ñëw jàppale leen dëgër lii lii tey dañoo ñëw nuyoo leen ko sant leen ko ay gor ngeen ñu waxante woon ak yéen tey gor te mënuñu fee bañ a dellu siwaat te mënuñu fee dellu siwaat ak loxoy kese moo tax tey ñu indi leen sërice bii sërice bii nag yàlla bum dakkati yàlla bu suñu teraanga jugati ci seen koñ bii ndax ay gor yu neex a àndal ngeen maam ndong teguma dara du ma woo teg ma dara fu ma toll maa ngi koy laaj di ko nemmeeku mu toog di ma xaar ba tey bu élection yee ngeen xëyee na ngeen àndandoo bu oto amee ngeen dugg ci bu oto amul kenn ku ne fay ñaar ku dem ci université bii voteel soxna Mariama yor sa kurus toog di ñaan résultat yi wàcc ñu ne soxna Mariama gañe na bu boobaa man fii maay ñëw rey fi mu xar togg fi añ ñu noos def suñu tànn biir sikkar sañ Baay Faal loolu daal laa woon tey moo ma yëkkati lii ma leen wax nag bindi leen bu liste bii sama liste bii bu gañee bu ngeen xëyee dinaa leen toggal fii añ defal leen ngontum maam Cheikh Ibra Fall bu boobaa jëmin babil muridine babil muridine waaw waaw ma barma yaasim gaaw yibul seen góor ya la la la Babil muridine rek maa ko waxoon def naa ko te duma ci yam fii ba élection yi jàll du ngeen fi gis benn jigéen bu jël ay propre moyens boppam kenn dooleelu ko di dugg ci jigéen ñi di leen sànni aw juróom ak fukkam kon nag liste bii voté leen ko palaat yaa ngi nii yéen ko moom képp ku xewle na nga ñëw dugal ci sa ñaat téeméer ngeen jox maam dong su matee juróomi palaat ngeen jënd bu matee fukk ngeen jënd dool bu ngeen ma jàppalee ba ma falu dinaa fi indi ay sées dinaa fi indi ay basang dinaa fi indi lu ngeen soxla ndeem soob na yàlla jërë ngeen jëf kontaan naa